Ah, bu fekkee gan nga ci info SN 221 abonné nga activé cloche notification bi ngir benn vidéo ba la bañ di raw mbir mu doy waar naka lanu nemmee ko fi nga xam ne bii mooy ca njaareem ci benn quartier bu ñuy wax a Grand Diourbel Ah, fa lañ fekk ah, benn waa taalibe buy wuyoo ci turu Emu Cissé kooku nag la a doy waar mooy nan ko fekkee moom moo nekk mbir moo ñaaw te waar ndax ci benn kër boo xam ne bi dañ ko abandonné ci benn garab daal lan fekk xale boobale ñu daal di ko fay takk ba mu faatu fa mu nekk nag mbir boo xamante bi daal mu ñaawa ñaaw la ñii di takk der yi daal ñoom ñi ngi lañ bët mbirum taalibe boobay wuyoo ci turu Emu Cissé ba ah, xam ana kan moo def mbir mu ñaaw moomale dina leen gën di toppal li xam ñaari bi mooy xibaar yi tukkee foofa la ci njaareem jërë ngeen jëf bu leen di fàtte nag di partager ak yi